بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi dellu siwaat nanu ci sunu jotaay bi ñuy faral di seq di ci jéema tontu ay laaj tey nag lu war a mat fukki laaj dikk nañu fi nu fas yéene jéema tontu laaj yooyu laaj bu njëkk bi xaw naa ne xaw naa jaxasoo waaye daal ci yetti mbir la aju mel na ne ci bu nit juddoo ba juróom-ñaareelu bis ba tudd giñ koy tudd mooy wutal ko aw tur ak ngénte giñ koy ngénte te mooy rendil ko gàtt ak wat gu ñuy wat kawaram yooyu daal la jëm kawar gi nag am na loon jox lu ma xamul man tudd na ci ay sobeeg yooyu xawma loolu fu mu jóge waaye daal juróom-ñaari fan yi daal bëgg nañ ñu tudd ko bu fekkee tudduñ ko woon mooy ñu wutal ko tur bëgg nañ itam ñu ngénte ko mooy ñu rend ko gàtt bëgg nañu it ñu wat kawaram te peese ko sarxe lu ni toll ci xaalisu ngurdu wat gi kon du mbirum sobe waaye dañ koy wat ngir peese ko ngir sarxe ko sarxe lu tolloog moom daa laaj nag ne ndax ki ñu ngénte wut bu màggee mën naa ngénte boppam moom tudd la waaye loolu tudd tudd moom mooy wutal ko tur rek ngeen ne diw la tudd ngente mooy rend gàtt bi gàtt boobu mooy ngente loolu nit mën na ko defal boppam bu màggee waaye du du luñ ko sant daal fekkee xam na ne defaluñ ko ko woon moom bu ko may defal bopp mën na koo def waaye bu ko defal tam dara nekku ci ki nga xam mooy way juróo daal jamono yam cay toll bu ko mënee sant nañ ko ko waaye kiñ ko jëfalut tam bu màggee mën koo defal bopp te bëgg koy tam mën na koo defal boppam loolu mooy ngénte waaye tur moom foogu ma dañ bàyyi dañ bàyyi kenn di ko bañ a wutalu tur moom bu ko defee lay itam dañ koy wat buñ ko watee ba noppi itam lañ ca santaane waat mooy peese ko sarxeeru tolloog moom ci xaalisu nguurdu ñaareelu laaj bi borom day wax ne dafa bëgg a xam bu fekkee yilimaan fi mu taxaw di julli dafa gën a kawe tuuti fi ñu topp ci ginnaawam taxaw di julli ndax boobaa julleem dana wér moom ndax it julli ñu topp ci moom dana wér bu dee xaw a dafa xaw a kawe tuuti rek bu dee tuuti day wàññiwut dara bu weesoo loolu nag dañ koy sip dañ koy sip lu dul ne ngànt ko waral ngànt mooy ñàkk pexe daal boobaa kii jiite kiñ ki ki ci topp ginnaaw yëpp ku ci ne mën naa mën naa nekk fu gën a kawe fa ka cee des nekk rawatina bu dee ki topp ci ginnaaw moom moom mën naa nekk fu gën a kawe fi yirimaanam nekk waaye yirimaan moom dañuy bañ mu nekk fu gën a kawe fi ki topp ci ginnaawam nekk lu dul lu lu lu lu lu ñàkk pexe waral liñ ci bañ daal mooy loo xam ne moom amut yil la xam ne xëy na day mel ne daal wane kilifteefam la wala mel ne daa tolloo te nit ñi wala yu mel noonu daal loolu moom boobaa dañ koy sutta mën naa la mën naa la si xaw sax nag digganteem ak yàlla ndax ak réy lay doon boobaa yanan ci yàlla musal ñetteelu laaj bi boroom day wax ne ñi nga xam ne dañoo ne ci yenn dëkk yi nga xam ne jigéen ña duñu faral ñu ci bari bokk duñu muur seeni awra nit ki buy dox sax ci mbedd mi wala fu mën di nekk rek day daje ñu mel noona muy wax ne loola nag ndax nit li ko war di jéggulu wala ginnaaw jublu ko moom dañ ko koy jéggal loolu nag wara su koo takk rek ci jigéen ndax awra góor da koo am jigéen am ko dañoo digal góor mu muur awraam digal jigéen mu muur awraam dañoo digal ab jullit tam mu bañ a xool awray moroomam moo xam ay góor la ñoom ñaar moo xam ay jigéen la ñoom ñaar moo xam góor ak jigéen la kon foofu la laaj bi dugg li am nag muy ci wàllu googu moom mooy nit ki liñ koy jàppe mooy liñ def ci coobareem waaye loolu ñàkk pexe la loolu kenn du ko ca topp te xool ak gis dañoo bokkut xool la ñuy toppe nit waaye gis mën nañ ko ko bañ a toppe su fekkee jubluwu ko nit moom mën na ne du ma xool nangam waaye du ma gis nangam nag du neex a wax kon daal moom bu mu xool mooy bu mu jublu bu mu jubloo gis lu ñu tere mu gis ko waaye nag bu ko gisee te jubloo ko kenn du ko jàppe wàllu euh, xool luñ tere nit mu xool ko ci moroomam foofa lay dugg ñeenteelu laaj bi dafa am xadis bu mu bëgg mu leeralal ko luñ ci jublu muy aljannatu taxta aqdaamil ummahaat maanaam yi de moom sax na nettali bi dikkeen yi nag am na yuñ ci saxalut waaye buñ boolee yëpp ak yeneen yi dikk ci yeneen waxin maanaam moom sax na te maanaam rek moo di na yaay sabab sababu dugg àjjana la ci doomam loolu moom bari na xadis bi ko andi lu koy dëgëral loolu rek mooy maanaam ko wax ji mooy àjjanaa ngi ci ron tànki ndey yi yaay yi seen roni tànk seen ron roni dëggu seen dëggu yi ci ron gi ci suufam laa gën a nekk waxin la mooy rek na ci ñoom manees na cee amee àjjana seen bi am na fu mu wax na du du ci ñoom rek waaye da leen a gën a féetal rek ngir bëgg ñu gën leen a bàyyi xel waaye way jur ci boppam rek waa jur ci boppam rek ba ndey ak bàyyi yëpp ndax am na fu mu waxee ne ku fekke ku fekke yaayam ak baayam doon mag te duggul àjjana kooka ku tuskare la mooy kon ku ku ku sàggan la daal ndax amee ci mën a amee ci mu àjjana dafa jàppandi bu sàggane bu amee ba amee ba amee ko ca nag kon ku tuskare la kon li ñu firi mooy loolu rek mooy ne kon ndey amee ci ma des na amee ci moom àjjana kon mooy soññu nit ki rek ci muy toppatoo muy toppatoo ndeyam ak baayam waaye ndey ji da koo tudd ngir bëgg ñu gën koo bàyyi xel rek juróomeel laaj bi borom day wax ne dafa am ko daal dañ koo nattoo ay mu yàlla yu rëy rëy yenn mooy bàyyi luñ ko digal la yenn yi def luñ ko tere la lu mel ne bañ a woor ak bañ a julleeg yu mel noonu ak nag di mooy yàlla ci tam wax ne la la ci luñ ko tere mu di ko def tam wax ne la ca gën a fés nag mooy njaaloo mu ne kooka nag mooy laaj naan ndax tuub rek mën naa tax yàlla jégal ko bàkkaar yooyu doonte atte yi yàlla digle ci yenn yi yim tere sax teguñ ko ko waaw waaw tuub de loolu ko tax a jóg bàkkaar ko tax a jóg benn bàkkaar nag rëyut ba weesu tuub bàkkaar bi gën a gën a gën a rëy mooy wedd yàlla ak bokkaale yàlla te tuub da koy da koy dind da koy far bàkkaar bu mën doon rek tuub da koy far la am solo kay mooy na doon tuub gu dëggu dañ naan tuub tuub gu dëggu tuub gu sell tuub gu sell tuub gu dëggu mooy nit ki dogu ci bañ koo defati mukk mukk mukk mukk mu metti ko naqarlu ko bu fekkee àq ci nit da caa aju mu delloo àq ci nit joojee lu mel ne ku jëloon alali jàmbur ak tuubam moom delloo delloo lam jëloon da cay bokk ba tey bokk ci lu tax tuub yu mat bu demewul noonu nag digganteem ak yàlla rek lay tuub jéggulu ko te dogu ci bañ koo defati mukk mukk mukk bu defee loolu rek lam defoon lu mu réy réy réy yàlla da koy jéggal ndax tuub it loolu ko tax a jóg bàkkaar ko tax a jóg amul benn bàkkaar nag bu réy ba weesu yàlla di ko jéggale di ko jéggal ko tuub bu dee àtte yi yàlla teg ci yenn mooy yi du caaganu kuñ ko tegul rek yàlla du ko jéggal àtte yooyu moom suñ mbir la nun nun waa nun nun ñi waa société bi daal àq société bi daal dañ koy teg ngir yare ko nit ki yare ko ñeneen ñi itam moom buñ ko ko tegee loolu mën naa tax xëy na ëllëg du ko defati ki ki yëg ne kii def lii teg nañ ko lii itam mën naa tax moom itam du du def loola moom it ngir bañ ñu teg ko loola waaye du ne kuñ tegut loolu rek yàlla di ko jéggal te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne yu mel nii ku ko def yi nga xam ne yàlla tege na ci ab yar waaw yàlla suturaal na ko suturaal na ko ba kenn yëgu ko jarut muy dem di jéggule boppam naan lañ ma teg yar bii boo jéggul yàlla tuub rek sutura si ko yàlla suturaal mu bañ koo teg mu bañ koo muri juróom benneelu laaj bi borom dafa bëgg a xam lii di gerte ak lii di ñebbe ak lii di dugub ndax ku leen di bay lu mu ci am rek nu mën di toll da caa war a génne asaka wala dafa am nu mu war a toll asaka door caa war dafa am nu mu war a toll asaka door caa war bu dee gerte war naa mat ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom bu dee ñebbe war naa mat juróom benn barigo bu dee dugub te mooy suuna sun suuna siinu am fii war naa mat juróom ñaari barigo ak genn wàll juróom ñaari barigo ak genn wàll kon ñett yooyu lu ci nekk day am lum lum lu muy mat asaka door caa war naka noonu yeneen xeeti mbay yi itam ak yeneen xeeti alal yi asaka moom balaa war ci alal rek day am nu mu toll juróom ñaareelu laaj bi day wax ne ku giddanti di nelaw ba ba muy yeewu fekk nañu julli suba ñu jullee ba noppi nag la yeewu ndax bu yeewoo mën naa bu jàppee ba noppi mën naa julli fajar door julli suba muy ñaar rakk yi dul farata tax mën na ko julli ba noppi door julli ñaar yi farata wala day julli yu farata yi rek loolu de mi ngi aju ci waxtu yi bu fekkee ci misaal dañuy door a julli rek nga xam ne tàmbalee gu te leer boobaa mën naa julli ñaari farata yu dul farata door a julli farata waaye bu fekkee julli nañ ab diir nag ba mu tàmbalee leer moom day julli rek farata ji bu bëggee julli li dul farata mu bàyyi ba jant bi fenk ba yëkkati ko tuuti juróom ñetteel laaj bi day wax ne góor gu am soxnaam waaye dem ba jékki-jékki daal soxna si mel na ne góor gi daal xolam xol bi dafa wëlbatiku jëmatul ci soxna si daal dañ ko waxe mooy daraam safatu ko daal daraam neexatu ko mu ne ndax góor googu yoon mayeeti na ko muy wéy ci sëy boobee ci anam googu waaw lan koy terewut ko loolu ci moom ci boo ci moom la aju rek li léeg mën na caa wéy kay bu ko bu ko soobee mu wéy ci li ñu wax kay mooy yoon may na ko mu génn ca moom may na ko mu génn ca waaye nag du ko forcé ci mu génn ca du ne kon mu dang dang cee war a génn waaye nag mën na caa génn fam ca war a génn daal mooy bu fekkoon ne dafa weesu foofa nag ba àgg ci li ko war ci moom defu ko bu àggee bu àggee foofu moom boobaa nag da koy da koy da koy bàyyi moom da ko war a bàyyi bis moom da nga koy yor maa nga bàyyi ko yor gi nag mooy liy farata ci yow sa digg ak moom moom nga di ko def la ca des nag mooy déggoo dëgg ci moom ak kontaan ko kontaan ci moom yooyu yëpp moom bu amee moo gën bu amul nag yooyu seet foog mu ne wéyaale wala neexa nga wéyaale ko waaye li ñu la dul may daal mooy moom li la war ci moom moom nga di ko bañ a def bu ca àggee nag moom da nga koo war a da nga koo war a bàyyi te jox ko ndàmpaay te jox ko ndàmpaay nit nga xamee ne jigéen ji bu tolloon foofu moom it moo jékki-jékki rek xolam daal jub jublootul borom këram boobaa sañ naa ñaan baat moom itam ndax bu ko defut mën naa àgg ci moom it li ko war du ko defat yàlla ci alxuraan sax fi muy tuddee jënd baat ci jigéen nga xam day joxe dara ñu fase ko loolu la ca wax mooy buñ demee ba ragal ne kat bu wéyee li ko war du ko defati kon sëñ naa ñaan baat góor gi sëñ na koo laaj dara ginnaaw jigéen ci moo ci bëgg a génn ci anam googu bu ci góor gi bëgg a génn ci anam googu itam sëñ naa fase waaye moom it day joxe ndàmpaay kon tam waaye nag duñ ne ko nag mënoo ñàkk fase déedéet sëñ ngaa fase lañ koy wax bu ko mënee woyaale itam nag loolu mbirum boppam la juróom ñeenteel laaj bi dafa mel ne tontoon nañ ko fi bu yàggut sax nag te borom dafa bëgg a xam natt yi jigéen ñi def noonu la ko waxee di teggil kenn beneen ñu teggil keneen muy laaj ab atteem ci ngërum ngërum Malick bu fekkee ni ñu ko xamee la day te mooy foog naa sax léegi nekkatul mbirum jigéen rek xëy na jigéen jigéen ñi rek ko doon a xame waaye léegi ñëpp a ngi ciy dugg góor ak jigéen ndax mooy rek ñu dajee ñuy dajale rek buñ dajalee jox kenn bu beneen ñu dajale waat jox keneen beneen ñu dajale waat jox keneen nga xam ne ñi ci bokk ñëpp ku nekk danañ ko jox te li leen di jox mooy tolloo loolu buntub dimbalante la ci la dugg dimbalante la rek day mel ne dañuy dajale lebal kenn boo ëllëgee ñu dajale waat lebal keneen ku ku teggi moom ku teggi moom lañ lebal kii teg day leble li fekk teggi wut da doon leble saa bu teggee léegi moom desee na borom ñu war a tegalaat waaye ci loolu la rek kon daal ñu dajale di leb di leble ci seen biir la rek ngir jàppalante ndax nit ñi dañ am yitte yooyu léeg-léeg amandoo lu ko mën a faj du leen yomb ci dimbalante nag dañuy dajale jox kenn lu mën a faje yitteem bu beneen na ñu dajale jox keneen bo ba ñëpp mat bu yemee ci loolu rek moom lu dagan la lu baax la sax nag ndax dimbalante la dimbalante la fukkeelu laaj bi te moo ci mujj day wax ne ku tukki woon la bitim réew moom dama yàgg fa nag lu ma juróom benn at yoo xam ne daal xamuñ xamuñu ci moom dara su fekk bàyyi na fi soxna ak doom bi loolu amee nag ñoom ñu jàppe ko ku faatu rek daal di koy sarxal soxna si jàpp yi da bam noppi ñu may ko rakki ko ko yoroon yu mel noonu ñu dem ba jëmmi jamono yéeg ne ndekete faatuwut dañ koo jàppoon dañ koo tëjoon dañ ko tëjoon kaso muy laaj nag ndax kon soxna si day dellu ci so te fii mu sëyiwaat itam am na fa doom la wax am na fa ay doom sax la wax ndax kon day dellu ci borom këram bu njëkk ba walla waaw lii da day dugg rek ci laaj bu gën a yaatu moo xam lii ko waral moo xam leneen waaye la ñuy njëkkee nag mooy ñoom waruñoo jàppal seen bopp rek ne jàpp nañ ko ko faatu rek daal di koy daal di daal di daal di soxna daal di jàpp yi nangam nangam waruñ ko defal seen bopp loolu ci yoon lañ war a dem buñ demoon ba jàpp di kii daal bootu dafa dundatul dañoo war dem ca yoon wax ko ko mais dañu dem tribunal ne leen noonu kat suñ mbokk yu sàngam dafa jógee wax wa leeral la lépp nam demee daal ne leen nag te danoo jaaxle daal liñ fi bàyyi ci alal wala soxna yi fi bàyyi wala yooyu yëpp ñu ci def ma bëggoon daal bu ngeen maanaam àtte jàppe ko ku faatu tribunal moom day àtte jàppe ko ku faatu bu ko defee nag ci loolu la ñuy sukkandiku ñoom ba mën a miiraas alalam soxnaa mën a jàpp yi te nangam nangam bu loolu amoon ba noppi nag ñu yëg ne faatuwul bu boobaa soxna si moom dañ naan fiñ ko mayewaat bu fekkee jotuta seq kooka ke dara man day dellu ci borom këram ba buñ xasee seq dara nag day des fa moom bu dee alalam dañ koo miiraasoon nag moom dañ ko koy delloo ku nekk lañ ko ci joxoon da koy delloo ku mën a delloo lépp ci saasi delloo lépp ku mën a delloo lenn ku mënta delloo nekk bor ku am lu mën a delloo la mënta delloo nekk bor ci moom ku mënta delloo gun dara it lépp doon bor ci moom rek waaye moom lu mën a delloo lay doon loolu kon mooy li fi dikkoon ci ay laaj mu leen doon jéem a tontu suñu kam kàttan di jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh